léegi nag yoon mënula dab ñi bokk ci Yeesu Kirist ndaxte kàttanu xelum yàlla tukkee ci Kirist Yeesu di may nit dund gu bees goreel na ma ci nootaangeeg bàkkaar ak dee li yoonu Musaa mënul woon a def ndax néew doole nit yàlla defe na ko nii dafa yónni doomam ngir mu yor sunu jëmm nun ñi nekk ay bàkkaarkat te mu jébbale bakkanam ngir dindi bàkkaar yi noonu la yàlla tase nguuru bàkkaar nit ba tax na léegi njub gi yoonu musaa di digle am na ci nun ñiy déggal xelu yàlla mi te bañ a topp sunu nafsu ñiy topp seen nafsu seeni bëgg-bëgg rekk lañu fonk waaye ñiy topp xelu yàlla mi coobareem lañu fonk ndaxte fonk nafsu ci dee lay jëme waaye fonk xelu yàlla mi dund ak jàmm lay joxe ndaxte ku fonk sa nafsu bañaaleb yàlla nga ndaxte doo déggal yàlla mbaa ngay sàmm ay santaaneem te mënuloo ko def sax kuy topp sa nafsu nag doo mën a neex yàlla waaye yéen nekkatuleen ci topp seen nafsu waaye yéen a ngi topp xelu yàlla mi bu fekkee ne mu ngi dëkk ci yéen ku amul xelum kirist nag bokkuloo ci moom bu fekkee ne kirist dëkk na ci yéen nag lii moo am seen yaram mi ngi ci dooley dee ndax bàkkaar bi nekk ci yéen waaye seen xel mi ngi dund ndax njub gi leen yàlla jox kon nag ginnaaw xelum yàlla mi dekkal yéesu ca néew ya dëkk na ci yéen dina tax seen yaram wi néew doole dund ci kàttanu xel moomu dëkk ci yéen kon mbokk yi am nanu lu nu war waaye waxuma leen topp sunu nafsu ak i bëgg-bëggam ndaxte kuy topp nafsoom faaw mu dee waaye kuy noot jëfi yaramam ci doole xelu yàlla mi dina dund ndaxte ñépp ñiy déggal xelu yàlla mi ay doomi yàlla lañu kon nekkatuleen fa kanam yàlla ni jaam bu ragal sangam waaye xel mi leen yàlla sol ay doomi yàlla la leen def ba tax nu di wooye yàlla aba maanaam baay bi ndaxte xelu yàlla mi moom ci boppam day ànd ak sunu xel ci seede ni doomi yàlla lanu te ginnaaw ay doomi yàlla lanu dinanu moomi lépp li yàlla jagleel ay doomam seddu ci ngëneel yi kirist yelloo waaye nag ku bëgg a bokk ak kirist ndamam ëllëg war nga seddu ci ay fitnaam tey xalaat naa ni sunu naqaru tey wareesu ko tëkkalee ak sunu ndamu ëllëg ndax li yàlla bind lépp a ngi ni seew a gis doomu yàlla yi feeñ ci seen biir ndam ndaxte duniyaa bi bépp mu ngi ci yoon wu dul mujj fenn teyu ko yàlla moo ko ko teg waaye teewul ñu am yaakaar ne yàlla dina rengi seen buumi njaam ci dee boole leen ci jàmmu doomu yàlla yi ak seen ndam xam nanu ba fi nu toll ne li yàlla bind lépp a ngi metti lu ni jigéen juy matu te du dunyaa bi rekk mooy metitlu nun it nu ngi metitlu nun ñi yàlla sol xelam ngir nu ñam añu ëllëg nu ngi ne seew yàlla boole nu ci lépp li nu yelloo ni ay doomam keroog bés bu yàllay goreel sunu yaram ndaxte sunu mucc ëmb na yaakaar li nga gis ba noppi nekkatul yaakaar li teew noo koy yaakaare li fekk gisagunu nag li ñu yaakaar dinañu ko séentu ak muñ te xelu yàlla mi moo nuy li ci sunu néew doole ndaxte xamunu sax naka lanu war a ñaane yàlla waaye xelu yàlla maa ngi nuy ñaanal fa moom ak i yu làmmiñ mënta takk te yàlla mi natt xol yi xam na xelaatu xel mi ndaxte tinu gi muy tinul gaay yàlla yi méngoo na ak coobareeg yàlla xam nanu itam ne ñi bëgg yàlla maanaam ñi yàlla woo ci boppam te boole leen ci li mu tëral yàlla dina joo loxoom ci lépp lu xew ci seen dund ngir jula leen lu baax ndaxte ñi mu xamoon lu jiitu dafa dogaloon ñu niroog doomam ngir mu nekk taaw ci biir njaboot gu yaa te ñi mu dogaloon loolu ci ñoom da leen woo te ñooñu mu woo da leen àtte nit ñu jub te ñooñu mu àttee jub da leen a boole ca ndamam lu nu war a wax nag ci loolu lépp ginnaaw yàlla ànd na ak nun kan moonu mënal dara yàlla mi nu gàntulul doomam waaye mu joxe ko mu dee ngir nun ndax dina dinanu bañale ci dara ñi yàlla tànnal boppam kan moo leen di tuumaal yàlla moo leen àtte ni ñu jub kan moo leen mën a teg tooñ yeesu kirist mi dee moo dekk itam te mu nga fa ndeyjooru yàlla dinu fa ñaanal kan moonu mën a tàggaleek mbëggeelu kirist xanaa duy nattu te du njàqare du it fitna du xiif walla rafle du it ay ngaañ walla jaasi sax moo tax mbind mi ne ñu ngi nuy rey ngir yow ci suba ba jant so ñu ngi nuy jàppe ni xar yu ñuy rey waaye loolu lépp teewul mu ngi mel ni ñay xare ci doole kirist mi nu bëgg ndax wóor na ma ne dara mënunoo tàggaleek mbëggeelam du dee du dund du malaaka yi du seeni kilifa du tey du ëllëg du boroom doole yi du li ci kaw mbaa ci suuf mbaa leneen lu ñu bind dara mënunoo tàggale mukk ak mbëggeel gi nu yàlla jox ci kirist yeesu sunu boroom